ci loolu également mhm. euh, ginnaaw ba ci wàllu ay rapport la ñu taxaw euh, mhm. bëgg naa également ñu wax ci li nga xamante ni dem ba mun naa ni mooy défrayer un tout petit mhm. euh, actualité bi yëpp moom la ñuy moom la ñuy tey journaux yu bëri sax ba ñu xëy titré nañ ko muy Mimi Touré ak rapport IG bi nga xamante ni da ko épinglé à de deux milliards est-ce que tey jii taxawaay bi ngeen am euh, ci ci rapport bi tukkee ci Cour des comptes ak xeex bi ngeen ci xeex. Mhm. mun nañ ko xaarale également tamit ci bilan bi donte ne nag Mimi Touré euh, fësal na ab communiqué ñu lu ni mel c'est juste parce que maintenant bokk àndatul ak ñoom. Mhm. moo tax ñu bëgg ko euh, jeter alors pour le cas de muy rapport bi nga xam ni IGE ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ci épinglé. par rapport ak gestion bi mu nekkee conseil économique social et environnemental mu nekk à auto de deux milliards alors man dama jàpp que ni liñ ci war a def taxawaay biñ ci war a def mooy taxawaay bi nga xam ni bi nga xam ne amoon am nañ ko ci rapport Cour des comptes bi. Mm. parce que il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids deux mesures. Mm. et société civile également mooy li may faral di wax noonu la war a doxee Mimi Touré dañ ko épingler rapport ci rapport rapport IGE bi daf ko épingler à auto de deux milliards donc je pense que ni. ni ñu demandé à ce que le rapport de la cour des comptes nañ ko jébbal justice noonu aussi lañuy ñuy demandé que rapport bi nga xam ne tey IGE daf ko fësal épinglé ci ki nga xam tey mooy Mimi nañ ko jël ñu jébbal ko justice justice mën a def liggéeyam wala boog buñ ko mënta jébbal justice nañ ko déclassifier ñu mun a xam lan moo nekk ci biir rapport bi parce que aussi Penda dañu toll fenn foo xam ni waratuñ fooye li nga xam ne dafa laale ci la bonne gouvernance parce que alal ji ngay dégg yëpp sa alal la sama alal la alalu askan bi la alalu mécanicien bi la alalu ki nga xam ni dafay taaba taaba donc fonds yooyu noonu je pense que ni dañ dafa dafa war a nekk ay fonds yoo xam ne ñun dañ ci am taxaw. mais li jaaxal léegi nag moo tax lu waral ñu doog a fësal bi rek. waa mais dans tous les xam nga xam nga. léegi waaw non xaaral ma la non non euh, euh, Penda. waaw xam nga. man li ma gëm mooy man je parle sur des faits. pour ñu xaar ba mu ne candidat la rek. ñoo waaw moom laa la déglu ma li ma lay wax ni c'est très important man ay faits laa gëm gëw ma xam nga politiciens yi chaque jour ma koy wax kenn ku nekk ak sa agenda mais li ci xam nga pend nañ def très attention gis nga l'inspection générale d'État IGE ay cour des comptes ay OFNAC c'est des corps de contrôle yoo xam ni ay cest c'est des corps de contrôle yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne dañu am crédibilité bu kenn dul naatable alors ñoom bu ñu defee seen rapport ba jàpp que ni Mimi Touré dañ ko euh, épinglé ci deux milliards est-ce que moment bi ñu ko génne est-ce ñun war nañ taxaw di discuter moment bi dañ ko génne wala pourquoi ñu xaar ba mu def déclaration am wala pourquoi lii non non non l'essentiel que mooy ah, l'essentiel que mooy la ñu wax ci biir mbir ma la ñu wax ci biir mbir mi est-ce que loolu dëgg la wala du dëgg maintenant est-ce que loolu dëgg la wala du dëgg kenn rek moo ni su mën a euh, jindi muy la justice donc moom gis nañ effectivement Mimi Touré def na benn benn poste benn communiqué ne parce que dama ni damay euh, dama def déclaration ne man je suis candidate aux élections présidentielles de 2024 wax ci sax daan ni bu ñu bëggee nañu auditer mes prédécesseurs maintenant ñun encore une fois de plus est-ce que war nañu taxaw ci opportunité bi mooy est-ce que dañu waroon bàyyi IG dañu waroon bàyyi bu Mimi Touré def euh, euh, déposer candidature am ñuy door a génne rapport boobu man boog en tant que acteur de la société civile man mi nga xam ne damay yëngu ci bon gouvernance man mi nga xam ni bëgg naa alalu askan bi ñu bañ ko pasar pasaree man du ma taxaw ci opportunité bi ci délai bi est-ce que non non man li ma gën a soxal mooy li ma gën a yitteel mooy est-ce que deux milliards yooyu ñu jàpp que ne Mimi Touré ko lubal dëgg la wala du dëgg donc loolu foofu kenn rek moo mu ci mën a ginni muy la justice donc li ñuy demander et ça c'est un appel solennel que je lance mm-hmm. rapport bi nga xam ne dafa épinglé Mimi mën man je demande solennellement à que nañ ko jox yoon justice ñu mën ko càmbar ñu xool lan moo ne ci biir est-ce que dëgg la wala dëgg wala boog buñ ko mënut a jox justice nañ ko déclassifier ba pare nag aussi je lance un parce que foofu la société civile amee amee solo waruñu demee deux poids deux mesures de la même manière ni ñu taxawee daan ñi ñu tuumal ci rapport cour des comptes bi nañ ci indi ay sanctions nañu jël dossier bi ñu jox ko justice justice def liggéeyam même force boobu même énergie boobu la ñu war a déployer ci rapport IG bi nga xam ni jàpp na wax na ni que Mimi Touré dañ ko ci épingler. Mm. te loolu nag que ce soit valable pour tous les rapports désormais bëggatuñ Sénégal benn cordu de ñu fiy dégg ay rapport rek produire un rapport. muy muy muy naxee muy nax sa mbaay noonu noonu. ñun dañu war a teel fan. rapport bu ñu fi génnee nañ ko dem leeral. dañu a toll fenn foo xam ne. bëggatuñ Sénégal benn corps de di génne rapport ñu jël rapport yi di ko nëbb wala boog la nekk ca rapport yi duñ du am benn jeexatal. su boobaa parce que mm. aussi encore une fois de plus. man dama xam li ci. les corps de contrôle parce que OFNAC laa nekk gis nga boo xamoon liggéey bu metti bi nga xam ne tey moom la les inspecteurs mm. wala boog les enquêteurs di fournir di ko def pour mun a produire ay rapport mais liggéey bu am solo la liggéey la boo xam ne dafa jéggi dayoo donc tey fi ñu toll nii ci Sénégal mm. bépp corps de contrôle bu génneti rapport damay demander à que la société civile sénégalaise mm. taxaw bi ñu am ci taxaw rapport Cour des comptes ñu taxaw ko ci rapport yëpp loolu rek penda mm-hmm. moo ñu mën a permettre ñu mën fi jëlee détournement de deniers publics. Mm-hmm. loolu rek moo ñu mën a permettre ñu mën fi jëlee euh, mal gouvernance mm-hmm. loolu moo ñu mën a permettre ñu mën a am tey ay ñoo xam ne bu ñu leen joxotee suñu alal. Mm-hmm. dinañ ko mën a gérer de la manière la plus transparente. donc encore une fois de plus damay woo la société civile xaaral xaaral maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw damay dama dama bëgg parce que li may wax ne c'est très important parce que man loolu lañ may critiquer man aw ma complexe penda critiquer l'opposition man ça c'est ma force ni may taxaw di critiquer le pouvoir noonu lay taxaw di di ko critiquer l'opposition donc de là les efforts que ñun ñu déployer récemment sur le rapport de la Cour des comptes nañu déployer déployer les mêmes efforts pour que rapport IG bi nga xam ne tey dafa épingler Mimi Touré et puis 2 milliards dafa bari. ñu leeral ko waxuma nag ni Mimi Touré moo ko def mais dañu bëgg désormais rapport bu génn ñu leeral ko ñu jël rapport boobu jébbal justice càmbar ñu xam wala boog bu ñu ko mënul jébbal justice ñu mën ko déclassifier. d'accord pour que ñu mën a xam la moo nekk. ci biir rapport ci loolu moom dafa ci xaatim ni bëgg ñu auditer ki nga xamante ni moom moo di Aminata Tall xam ni moo ko fa jiitu woon mais également ñu auditer ki nga xamante ni moom moo fa nekk actuellement muy Idrissa Seck est-ce que tamit yu ni en compte euh, peut-être audit yi jiitu euh, mun nañ éviter yi lépp rapport. j'ai pas bien compris. dama ni. Mhm. xam nga moom euh, Mimi Touré dafa sàkku ci communiqué bi nga xamante ni xaat mi nag pour leeral boppam. Mhm. que ni lu ne mel taqeewu ci laalewu ci dafa déposé sa candidature. moo tax ñu mhm. bëgg ko faagaagal. mais également dafa bëgg à ce que ñu audité euh, ki nga xamante ni moom moo di Aminata Tall euh, nekkoon foofee avant moom mais également ñu audité aussi ki nga xamante ni moom mooy Idrissa Seck bi fa nekk actuellement ma ne jàppoo ne bëgg-bëggam boobu buñ ko te tenir en compte buñ ko amalee ñu audité leen jamono bi nga xam ne ñu ngi mm-hmm. amal euh, seen i fonction wala ñi nga xamante ni amaloon mm-hmm. nañ ko bu yàgg loolee yëpp dina gën a mën a indi transparence ci xam nga nag xam man xam nga nag audit euh, dafa am na ay normes am na ñoo xam ni ñoom ñuy juger opportunité bon moment la ñu auditer nit parce que aussi loolu du sama du sama compétence cest à ñi nga xam ñoom ñoo nekk IGE ñi nga xam ni seen xel dafa màcc jëm ci loolu ñoom ñooy xool ne est-ce que kii dañuy bàyyi ba mandat bi jeex wala bu dawalee un an wala deux ans wala boog par rapport ak session yi su jeexee ci yan cadre la ñu mën a euh, def ban moment la ñu mën a mën a def audit bi mais man li ma gëm mooy képp ku ñu dénk képp ku ñu dénk dañ war a auditer loolu moom c'est ma position képp koo xam ne jox nañ la institution wala jox nañ la ndombal tànk wala jox nañ la ay fonds képp kuy ordinateur pour man boo paree sa liggéey wala sax bu demee ba sa liñ la dénkoon mu xaaj war nañ la auditer te buñ la auditer ba jàpp que ni am na lu yem ni ci un franc wala ci cinq franc ak nu mu mënti toll da ko ci luubal man jàpp naa ni Penda yoon dafa war a def liggéeyam. may may préciser également que ni. Mhm. li ma wax que ni rapport Mimi Touré bi nañ ko jox euh, justice wala ñu déclassifier mhm. ko. Mhm. ça veut pas dire que dañ koy indexer. encore une fois de plus. ñoom ñëpp c'est des indices. parce que les corps de contrôle. Mm-hmm. ay indices la ñuy mettre sur la table. Mm-hmm. dañuy yëkkati jàpp que ni lii kat lii ak lii am na luubal mais ki nga xam ne tey moom rek moo mun a firndeel moom moo mun a wax que ni effectivement. Mhm. lii am na luubal mhm. c'est la justice d'accord alors à rappeler que vous suivez toujours votre émission de la semaine 13 minutes de vérité ñoom mbégte tey toog fii ak suñu invité di Babacar Ba euh, le justiciable ngir mën a waxtaane ak moom ci lu gën a fës ci actualité bi bokk na ci tamit également Babacar l'affaire Pape Alé Niang mhm. donc gis nañu ni à deux reprises ay avocats am introduire nañu ay liberté